ɓo ƴeenati ɓo ana calalo ya anara ya ana arona ɗef ɓuɓaha iro ɗef yiɓaha am lahay il da koma mino wondi fi mini iña anara fa lahay iña ana fa haal iña anara fana tas afi ot ɓuy ɗefarona nima do koy gundu dana pagaɗe ni yaay so musa sis morono fara wona koy gundu la pedan haal iña ana biti yen lahoy avocat ya ana yen lahoy hiliso ana yan lahuy iya ana yan lahuy nijaya ana filato ɓo e guine we wata yimmini pan rek nijaya arina ɗoyi ari ɗoyre nde ɓooɗi yuhoro nde ari ɗoyre nde helsi na heno man som mbiyeɗa ma haal iña anara ɗufno ayso ayso kofeɗe da koma hatti baɗal o wonde biti keyi mbiye na wa ay kulis def tirage pour parrainage a par ce que parrainage killo filon ja kuro ɓo humo yibro yibro ɗeɗo nilaaɗo yeyanta ƴeena new dinko mais ɓewo won wona ɓo ɓeɓna déposé ɓo déposére keyi anna ɓo ayi defe tirage pour ɓo also ɓoobu youtube ɗi dane ɗeɓu dossier dane ɗeɓu yerna to mbeɗa woɓɓe kurutowodin wawi wa yiyele ɓo ɗe mbi acca momil ɓomil ɗo accata wa ay wawi yefe daha keyro anna wonde tirage wonde diw dane ɗeɓu dossier diw dane ɗeɓu also dossier diw daa naa ñee yiɓa hen tirage ɓakwa pañe ɗoy comme dene ndefu tirage football wo tirini wacca anti wonte leegi ay also a ɓoofi yurɓe ɗaɗa ɗeɓi ɗuɗum ɓoyɓa ɗa hok chance biditi mine la doublon ɓoyɓa mine la doublon par ce que ɗaɗa ɗeɓ hen acca ɗinara papa fa acca ko ti surtout fi ti ɓoyɓa ɗofuɓa buuɗa i wonu mais ɗo fo laata droit ɗo fo kuɗɗirta ti e dossier papara dawɗo fo kuɗ dossier o ɗef léegi moussa diouf ana xom dossier wu comme hom dossier u hom dossier papara bin foro bi papa dane considéré ɓo anne won ɗofi ba comme fum lahta réserve fay fo kala réserve par ce que ɓo meloro mel sabbora wonno neɗɗora fo kuɗ sabbo a iid fo lah ɓuy fayde remplacé hen doublora léegi fay nisa moussa diouf fi ba fo kale mbay kan ɗo ɓakkina i jaɓ ɓo ana yiɗede maɗa ne homtinoɗa ha yiɓama pangani waccani anda tig dossier also ɓoƴi min a ƴimitera ndaw duguɗo candidat to tiguro homo caka i dossier ƴeno fay mel caution nda caution e won nda parénage won ndati fala hay probléme a justice ndati fala haray état hélice ndati nangam nangam nangam est ce que justice meelu ndati fala heɗɗari probléme ya ɓeɓ meelo meelo ne hene bidi keyɗo a hene yino dossier homa yino mais caka i kiit file yel ni lah bi manquera bok wonɓiɗiti fokke kuɗo hirisɓe kuroy hina noon ndax wono kiiti wakke bon kiiti paana e wonayra fi fi fi isay i jaɓ ɓeɓ nak e fiyen da koma mon yiminti lakkey tigi eta koye ko e, ndut la haɓan ati hene bididi ɓuufu faari konna sayeda neɓe kono ma fay faka yiya fay sama o kay fo pay fo vote ɗi pour lik ɓofyurbinoɗa pahaba binoɗa pango yibara wona yon eh, yore hokki ganna dari carte électeur wahta ah, la fo pange fuɗɗumno da koma ni ɓono wonoti a gonla ɓuumo ayo wona e ron ɗe iñamanɗa